xamante ne bi maam Thierno nga xamante ne bi moo sanc Touba sanc Darou Salaam sanc fu Serigne Touba ma a bëgg a sanc moo ko sanc entre 13 ak 14 1913 1914 mënuma la jox exactement ni telle année parce que jamono boobu bind amutoon waaye daal diir bi mu dëkk Darou mu Serigne Touba joxoon ko ndigal mu ñëw sanc Darou Moom ab diir la ci teg euh, feebaru pest suñu borom nattoo ko fa mu ñëw ci tàbbi ca dëkk ba Euh, mu reculer ñëw dëkk si fii Choukorit Choukorit bi mu fi dëkkee sànce toog na fi 16 ans yoo xamante ni bi demul Daaru Moxti demul fenn saa bu génnee dem sëñ Sëriñ Tuubaa da ko woo mu dem wuyu ko njaareem wa illa mu dox dem Daaru mu Muxti xool ñiy liggéey dellu si waat Choukorit waaye 16 ans yoo xam ne moom fii la nekk te li mu fi nekkoon lu dul liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla kon tey suuf si ñu toog nii dafay suuf su Serigne Touba gërëm ndax addi ji nga xamante ni bii moom lañ ko fi mujj sëf yóbbul ko njaareem téeméeri mbaam la te mbaam mu nekk di ngay dem da sëf te la nga sëf doomu aadama moo téye ci sëg buum wamat la muy téeméeri mbaam di téeméeri sëf di téeméeri nit kenn ku téeméeri nit kenn ku ñu nekk jiital mbaam mbaam ma nga jiital euh, sëf ñu dem yóbbul ko Serigne Touba bu ma histoire euh, yóbbuwul bis boobu ci la turu sukóor yu génn ba ndax fi tuddutoon sukóor yi cinkooli la tudd ay pël fi dëkkee woon nday ñoo fi dogaloon maam Thierno donc euh, turu sukóor yi ci bis boobu la génne ndax dafa laaj fu ñu ko liggéeyee ñu ni ko yi mu ni déedéet sukóor yi boobu ba fii mooy ñuy wax nag ñun ñi nga xamante ni bi euh, ñoo ko xam ñun sukóor yi la ñuy wax am na ñoo xam ne sikóor yi la ñuy wax mais xam nga sikri moom ci da koy dugal ci baatu zikru la a sukóor yi kiy sant nag moom sukuri rek lay mën a doon. kon donc moo waral baatu sukuri bi. sukuri nag kon dafay nekk benn euh, mbóot ci ci ci ci ci ci sëriñ bi moo xamante ne bi lu sëriñ bi woote lu ne buñ ko ko fi defalee day yell. baax sëriñ Ousmane mi nga xamante ne bi moom la ko maam na joxoon avant muy génn àdduna tey la ma jàpp ne buñ ko defee dana ko neex te danañ dab ba neexam te dinañ dabit mbégteem lool. mooy lépp lu ñuy woote ci diine mbaa ñu di ko woote ci sëriñ bi di ko defal sëriñ bi ñu tàmbaleel ko ko fii ci dëkkam bi ndax euh, sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Touba moom moom euh, Beleel sëñ Fallou Ndindi ak feneen ak keneen koo fi tudd tuddal ko feneen kon boo nee Seydina Ousmane Choukori ah ak njabootam bis bu toll nii walla bisu it wala bisu màggalu Daaru Mooti wala bisu gàmmu ak njabootam daje ci biir barabam bu ñoo xam ne euh, parce que euh, explication boobu xaw ma xaw ma xaw gudd tuuti mm-hmm. ndax bu ñu fàtte ni borom daaru moxti bi muy jox fii Serigne Ousmane daa amoon ci moom yaakaar. borom daaru moo borom daaru moxti moo joxoon fii Serigne Ousmane. Mm-hmm. te nit ki booy jël dara lu précieux ci yow di ko jox nit day fekk nga am ci moom yaakaar ni. dina la ko war a mën a téyeel dina ko war a mën a sàmm ba mu ñoŋ tey maa ngi dégg commentaire bu ne di kii lu ne mais en réalité sama xel fa muy doxee ak fi nit ñi di waxee dañoo dafa sore man maa ngi inspiré wu ci yaakaar ja maam Thierno Birahim amoon ci Seydouna Ousmane nu may def ba yaakaar ja du tas waaw ndax Serigne Touba yaakaaram dafa musta jóg ci Thierno te Thierno di ko taxawee saa su ne Thierno bu yaakaaram nekkee ci Serigne Ousmane war nañ koo mën a taxaw ba yaakaar jooje ñu ca man suñu kem kattan fi léegi ñu ngi dund te suñu borom di ñu dimbale ñu di ko tal te di ko mën ñu def ci suñu kem kattan ba ñëpp xam ne lu sama borom dogal na kenn mënu ca dara. waaye sama borom mi ngi dogale tamit aussi ci sababu doomu aadama bi ndax gis nañ ne nit dina jóg dem di wuti walla di doxi loo xam ne suñu borom gërëmu ko waaye mën na koo am na ko bëggee. kon sama borom ay mbiram mooy doxe noonu ku am fu lay dem doxi safaan wala nga dem waxi safaan wala nga dem waxi ko nu mu la neexee ah ki am fu lay dem wuti ay ngëneel na na garde fulam te nekk ci li muy nekk. ñu bàyyi ko ci. Mbacke dafa am loo xam ne wayu woo xam ne am nga ko ci réew mi te say taalube ñooy wéy di ko dégg muy nekk ndam ci ñoom. ñeneen ñee la koy jëwee ndax euh, bi nga tollee ci àdduna dem nga ci Europe ba Europe jafe. nga doon doomi Mbacke Mbacke doomi sëti maam Thierno Ibra Fati doom doomi maam Ousmane am nga àdduna teel nga ko wagaru teel ngaa xam naka ngay fonk ñoŋale sa diine maam Thierno nga dikk ndakaaru dongo yi bàyyi ko fu nekk ci mboolem diiwaan nga toog ba mu yàgg nga mën fa ñukk lépp booba ak léegi def na ñaar wala ñetti at nga dikk ci àll boo xam ne gattax a fi ne ndox mi fi am yaa ko fi indi te lu fi sab taalibe bàyyi ko indil la bu ngoonee nga toog di ko joxe mag ñi jóge daaru lu waral retraite spirituelle boobu lan moo waral lii. Pape Sidi xam nga sénération euh, bii ñu nekk ni euh, ñun bu ñu kiyee bu ñu bu ñu ñu du ma bëgg ñun ñëpp ñun ndaw ñi léegi bu ñu traduire comme léeg-léeg nga gis kenn ku ñëw ne mooy retraite spirituelle c'est pas une question de spirituelle nit ñi dañuy fàtte ni. Euh, bi may am quatorze wala quinze ans maa ngi woon Dakar fa nekk fa nekk fa nekk fa nekk ba ni ma fay jóge euh, dem Europe toog naa Europe pratiquement cinq ans yoo xamante ni bi presque ñëwuma Sénégal bokkul ak li ma doon ñëw def weer bu ma kiyee dem waaw mais kuy dox ba mu yàgg nag nit saa booy dox yaa ngi xalaat ñoom dañ maa gisoon Dakar mais xamuñu lu nekkoon sama bopp. <laughs> du dëgg maa ngi doon dund Dakar di dund ak bi di dund nit ñi et tout mais li nekkoon sama